ملك الذي خلق البرايا وعشه والمصطفى صلى عليه الواسع ملك الذي خلق البرايا واسع والمصطفى صلى عليه الواسع haasa taqadduma wal baraa'ata faa'iqan maa in lahu hindal maliki mudaari'u man sarrahu an laa yasaala mukarraman falyuhbi bil muxtaar nihmal baari'u man sarrahu naylal maraaqibi kullihaa فليقتفي المعمود نعم السارع من سره نيل المراقب كلها ñoo ngi yëkkati kàddu kàddu yu nuyu cant kàddu yu nuyu nuyu yóbbante bu ñu suñu kilifa yóbbante ci kilifa giñ fi fekk muy suñu xarit suñu nijaay suñu njiit muy maître Sidiki Kaba délégué régional bu Tambacounda président de la république dénk ko ko tey ci suba balaa ma départ dama waxtaan ak moom wax ko ne ko maa ngi tàggu président pour dem sama commune ca Kouthiaba parce que doomu sëñ Muntaxa Mbàkke moo fay ñëw ci bésu Baye Serigne Gueye mun xamal ma ne ma am nga ndigal bi mais aussi ay kàddu yu yu jóge ci président de la république Macky mi nga xamante ni moom la yàlla jox réew mi tey mu jël confiance teg jox ñu ko dénk ñu gox-goxaat yi nekk ci biir Sénégal yépp pour ñu xalaat génne ay pexe nu gox-goxaat yi nekk ci biir Sénégal jëmee ca kanam moom ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm ñoo ngi ñaan sëñ bi di ko wax mu ñaanal ko yaakaar bi ñu am ci moom yaakaar bi senegal am ci moom mu nekk yaakaar buy yàgg ci jàmm ak salaam mottali liggéeyam parce que soxlawaat neen ko. sëñ mun taxaa borom jamono xale yi ñi ngi xeex ñi ngi dóor ñi ngi toj ñi ngi saaga yàlla ne ko nag jamono boobu yaa koy yor mais xool leen jëmmi sëñ taxaa boo ko xoolee ree ji ngay njëkk a gis. mooy jàmm murit bu la noyee li muy njëkk def mooy sujjóot fóon sa loxo mooy bëgg naa la bëgg ma fóon sa loxo sujjóot sa loxo sujjóot boobu xam nga mooy lan mooy sëñ tubaa xeex ba mu xeexoon ak seytaane ba yàlla waxee ne yéen ñëpp ñëw leen ngeen sujjóot ci aadama seytaane bañ ñëpp nangu seytaane bañ sujjóot bi ñuy sujjóot ci loxo sëñ tubaa moom moo xare xare boobu noonu comme ça donc ñun ñàkk dara xale yi li ñu leen di wax mooy rafle woo leen royukaay rafle woo leen royukaay parce que sëñ Touba ngeen am comme royukaay rafle woo leen royukaay parce que maam Cheikh Ibra Fall Baabul Muridina dafa xuus sonn tarbiya la sëñ Samba mi wax ci commencement ba tarbiya tarbiya mooy sonn donc sëñ bi am neen mbégte bu baax a baax am neen kontante bu baax a baax di wax ne dogu neen bés bi lañ ko jàppoon den ko gën a jàpp parce que suñ bopp lañ ko defal suñ bopp lañ ko defal parce que sa ñëw fii ñun suñu yokkute la danga nga ñëw indil ñu yokkute yow du la yokkute mais ñun lay yokk donc ñun ñoo ko war a téye téye ba ca war def la ca war te Serigne Gueye am nañ ci moom yaakaar dinañ ànd ak moom jàppalante ak moom lépp lu ñu war a def incha allahu rabbi dañ koy def. bu ñu yëkkatee bis bu toll nii di ko def. jële ndigal ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ndax nit ku ne mën ngaa def lu ne waaye li nga am ndigal nag dafa yëmut ak dara te bis bii kenn ku ne xam na ne ndigalul Serigne Touba moo ci nekk ndigalul Cheikh Mouhamadul Basir ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha seere si mooy sang bu tedd bii bu ñuy liggéeyal Serigne Touba mag jëma jee ñoo cee yem ni muy jaayantee ci Serigne Touba mooy suñu suñu monsieur le suñu feerte sunu fierté waxuma waxuma commune bi de yow monsieur le yow yaay sunu fierté parce que ku mel na yow ñëpp bëgg nañ ko am ñii fi toog waxuñu mais koo ci joxoon kàddu benn kaddu rek lay jël président lim la jox dafa tuuti sa mérite passé na ko barkeb Cheikh Adama nun ban dalee liggéeyal Serigne Touba boobu xamuñu kan mooy lay Ndaw monsieur le maire xamuñu woon ne président de la république dina fi toog te buñ fu ñu ngi koy ñaanal nag li mu yéene senegal mu liggéey ko parce que jàmm rek am solo te kii wax na ko kenn mësu koo dégg ci lu ñaw yu ne ñu ngi koy dégg ci réew mi mais lii nga xamante ni moom moo am ku ca ba tey Sénégal xar kanam bii la soxla mooy toog waxtaan dal sottante ay xalaat weccoo xel xool nu réew mi demee kanam loolu moo gën lépp réew mi. yàlla moo koy joxe te ku ko soob la koy jox kon xeex ak xuloo joxewul dara na nit ñi delloo si seen xel te dellu ci yàlla te xam ne fii ñun ñoo ko moom lu fi baax ñoo koy defar bu la yàlla joxee fii nga mel noonu dinu dimbali ci lu ñu yokkal suñu gox bii lépp loo xamante ne dëppoo nag li nga xamante ne mooy diine dëpp yokkute képp ku ñëw ci yow jooju la nga def ca la nga ca man rawatina suñu bis bii ñun bu ndajee ci sëriñ bi duñ mën lu dul sant la parce que li jàpp na ci bis bi lépp ginnaaw yàlla yow la su may wax ci moom sax dañuy wax ni bàyyi sëriñ politicien la déedéet man li ma am politique mayuma ko te politique fi la koy bàyyi muy sëriñ Touba waaye kii day murid saadix kii tëlta lekk tëlta naan ndax gox bi bëggut lu dul gox bi Ablaye bëggut dara Sénégal la bëgg rawatina Koutiaba nit na mu waxee melu ko mais na mu jëfee la mel te li lim jëf kenn ku ne ci ñun teg nga ci sa bët kon lu nekk fële lañ naan magane nga ne mais lu ne nii ku yor ay bët ku ne war nga koo gis te monsieur le maa ngi seedal président de la république ne la su amoon ñu mel ne yow ci jukko ak melokaan léegi tey li mu bëggal Sénégal lépp ñu am ko kon sous-préfet yóbbante nañ la ci président sunu jàmbaar ji na na xam ne gox bi département bi laa wax nun modèle la ci ñun. ba yi may sax. xam xàmmee nan. xàmmee nan. ku amee eh, njariñ. ku amee njariñ. waaye xàmmee nan itam. waaye xàmmee nan itam. ku amee lor. amee lor. kon fas yéene di rek. kon nan fas yéene di am njariñ rek. loolu mooy li nu ëppal njariñ tey tey wattandiku luy jur lor wattandiku luy jur lor ci sunu biir ak feneen fu mu ci mën a doon kon monsieur le maire sëriñ baa ngi lay sant yow itam ci taxawaay bu rëy bii ngay taxawee ci njaboot gi ak ci diine ci fépp fu mu ci mën a doon yal na yàlla yokk saw fan yokk sag wér yokk sa teraanga ak say maqaama lii la président de la république dénk nga am ci ndam nga am ci ndam moom itam mu am ci ndam ngeen bokk ndamu yéen ñëpp jàmm mucc ak jàmm mucc ak jàmm ku ko bëgg am ku ko bëgg am fii ci àdduna fii ci àdduna ak alaaxira ak alaaxira loolu la koy maye loolu la koy maye mooy di yéene aw yiw di yéene aw yiw di wax aw yiw di wax aw yiw di jëf aw yiw di jëf aw yiw di taqoo ak yiw di taqoo ak yiw loolu nag loolu nag sous wax na ci sous-préfet wax na ci sànq ndax fi ñu toll nii ndax fi ñu toll nii li nga xam ne waxi sëriñ bi la li nga xam ne waxi sëriñ bi la tënk cib tënk. kenn ku ci ne. kenn ku ci ne. bu nekkee ci loolu. bu nekkee ci loolu. jàmm rek ay xew. jàmm rek ay xew. te jàmm ci la ñun ñëpp xaj. te jàmm ci la lépp xaj. lu wuuteeg jàmm. lépp lu wuuteeg jàmm. la koy la koy sabab. la koy sabab. lépp yàlla nañu ci yàlla musal. yàlla lépp yàlla nañu ci yàlla musal.